Eh, ni ko sëñ Talla waxee jarul ma di ci jaaraat tey ci dimanche di ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci Saabaan atum junne ñeenti téeméer ak ñeent fukk tolloo juróomi fan ci weeru mai mille neuf cent deux mille dix neuf sax la deux mille dix neuf daje nañ fii ñi ngeen gis ci taabal bi ak ñeneen ñoo bokk liggéey bi ñooy bureau bi ni mu ko waxee ci tàkkusaan ba tey ñu ngi ci liggéey wala sax lu ko jiitu waaye daje bi ndax ñu ngi doon gëstu ak a jokkoo ak a soññi nit ñi ci seen weer na ya, ndax loolu ak jaamu yàlla la bi loolu yëpp amee kan, nag li tënk mi ngi nii weer wi na ci bërëb yi may bëgg a ci biir Sénégal na ca Tambacounda feeñ na ca Kolda na fii ci Dakar fi ñuy wax West Foire bu ci ne nag dañ ñu koo jox ci xibaar yi wér topp nañ ko ba mu wér na détail xamul fi bu dee ci réew yi ñu dendal na ci Guinée Conakry topp nañ ko ba am ci lu feeñee ca Côte d'Ivoire topp nañ ko ba am ci lu wér feeñee ci Mauritanie topp nañ ko ba am ci lu wér feeñee ci Gambie topp nañ ko ba am ci lu wér feeñee ci euh, Nigeria topp nañ ko ba lu wér feeñee ci euh, Algérie topp nañ ko ba am ci lu wér bu dee ci bitim réew feeñee ci Arabie Saoudite nga xam mooy xiblatul muslimin kon nag ci loolu la ñu sukkandiku di sant sunu borom subhanahu wa taala ci may gim nu may nu fekke waat weer bi kon maa ngi wax ci sama tur man maam Gora Ndiago Ibrahim ak ci turu mboolem ñi bokk ci bureau bi di liggéey ci Lajnatu Taraaxil Hilaal ak ci turu sëriñ yi nga xam ne di ay boroomi xam-xam tànn nañ leen di diisoo ñoom ba xam lu mbir mi tege fu mbir mi tege bala ñu koo jàllale ñoom ñëpp maa ngi wax ci seen tur ne Ramadan sax na bis ni ki tey suba di altime di juróom-benn fan ci weeru mai ci la ñuy tàmbale shahru Ramadan mubarak di ko jottali julit ñëpp waaye duñ ci yam waaye di ñaanal julit yëpp di leen ndokkeel di ñaan borom subhanahu wa taala mu may ñu taxawaay bu rafet ci joxe li nu yàlla sant ci weer yi ba nu defee ko ni ko borom bi bëggee tam ànd ak ngërëmal borom bi subhanahu wa taala هذا وبالله التوفيق واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين